Bonsoir ou bonjour, ça dépend de quelle partie du monde où il se situe. Nous vous invitons à regarder, à comprendre et à mieux comprendre à la philosophie de GT5. Sabdika, la philosophie de GT5, après avoir sorti une mixtape, il prépare un concert le lendemain de la Tabaski. Nous sommes venus nous entretenir avec la cartelle de GT5. Comment la chose les perspectives d'avantage et de l'avenir avec GT5 Alors ce soir, plein de trucs à comprendre et à savoir sur GT5. Let's Sibo, Sibo, Simna, Simna, Sim, Sim, Poleteco. Sibo, Sibo, Simna, Simna, Sim, Sim, Poleteco. Sibo, Sibo, Simna, Simna, Sim, Sim, Poleteco. Sibo, Sibo, Simna, Simna, Sim, Sim, Poleteco. Simna, Simna, Sim, Sim, Poleteco. If you tell it, then you wanna sell poop 30. sommes à Kaolack, je vous annonce et je vous réannonce Nous sommes à Kaolack, la capitale du Sine Saloum. Nous sommes à Kaolack, la première île du du Sénégal. Nous sommes à Kaolack, la crème du capital hip-hop Alors, ce soir, on est là. Voici l'un des éléments de la G85. Nous sommes là pour essayer d'échanger avec lui comment s'est formée la chose, quelles sont les perspectives d'avantages et de l'avenir sur G85. Alors ce soir, plein de trucs à comprendre et à mieux comprendre sur GT5. Je veux que les gens puissent comprendre et à mieux comprendre ce que ça veut dire le coup de GT5. Ils n'ont jamais cessé de nous régaler. Chacune de leurs sorties de l'euphorie au sein de leurs admirateurs. Let's go. Ñu xooli ji biographie bi daal di Génération Hip Hop Éternelle, créée en 2004 à Kaolack par Ba, Aka, Biz et Nigaël. Le groupe GT5 véhicule des messages de prise de conscience de l'identité de l'homme sur les thématiques sociales, politiques, économiques et spirituelles. Ce groupe a développé sa carrière dans une direction nationale à travers des concerts, des festivals et des concours. Il a pu organiser des concerts en 2006-2008 en partenariat avec la Chambre de commerce de Kaolack, Plan Sénégal et le Centre de Kaolack Draman cité un concert en 2010, en 2013 et pour la présentation de sa mixtape Puissance en 2014, puis en 2015, le lendemain de la Tabaski à l'Alliance franco-sénégalaise de Kaolack. Depuis 2008, le GT5 compte deux membres, Ba et Aka. Ce duo considéré comme l'un des underground les plus engagés à Kaolack de par son style Mais aussi, de par ses textes, GAT5 a participé plus de 150 concerts à son actif à Kaolack, Dakar, Thiès, Diourbel, Mbacké, Sokone, Ndofane, Saint-Louis, Mbour. A aussi participé au festival Art Hip Hop de Kaolack de 2007 à 2015 Kaay Fecc en 2010 troisième festival mondial des arts nègres en 2011 Afrique K, fête en 2013 et le festival de rap à Ndar. En 2014, il est fête de la musique à côté de ses concerts et festival GT5 a participé aux différents concours de hip-hop organisés à Karak. En 2007, Tundu Dior, organisé par le Plan Sénégal sur le thème inscription des naissances à l'état civil, un devoir pour les parents et IACAR organisé par Nescafier. Et en 2008, Urban Groove, organisé par Sankara, c'est un groupe très engagé car il a développé plusieurs actions au niveau de la région de Kaolack et sensibiliser les élèves sur le sida, la drogue et l'habillement hip-hop KL création des pages Facebook et YouTube. pour la promotion des artistes de la région de Kaolack création d'un label Seven Eighty Records studio d'enregistrement montage photo et cours de formation pour beatmaker mixage et mastering Eighty Five est membre de mouvement Y'en a ils ont créé depuis des compétitions de rap dans les départements et communes La structure 785 a produit des mixtapes en 2016 tels que mixtape de Dex and Daz, Sarah Talan, la mixtape de Dof Ndeye et en 2017 il sort l'album de Dof Ndeye intitulé Mujjee Teew Gën a Siiw. Discographie 2004 Sonu Live et Talibé 2005 Corruption Babylone et Musique 2006 Hip Hop du Fo Jirim et Baye Barhama 2008 One The Mic Live In The Ghetto Xel mu sell 2010 Nevermind Ma Vie Manoko tere dem noonu Souththierry 2014 Connection Fear PND 27 décembre 2014 la sortie du mixtape Puissance vidéo 2013 mënoo ko tere dem. ma mel nag asalaamaaleykum naka waay naa sant yàlla wér gain alors dis bonsoir wa salaamaaleykum Aïcha open mic ok asalaamaaleykum ñu ngi nuyu gars yëpp xama di siyaar waa Saloum Film xama di leen bëggee ñu ngi gis seen job seen liggéey xama mi ngi rafet en plus xama ñëpp a ngi koy saluer quoi ñu moom dañuy wax ne xama vraiment ci yoon bi yéen a jàppale hip hop bi aussi tamit yéen ci yoon boobu lañ nekk mooy ci côté Kaolack mooy puus def benn hip bi nga xam ne mu ngi fi nekk benn genre trou boo xam ne à chaque fois concurrence lay doon diggante yéen a yéen a hmm. parce que gars yi dañuy lu baax lu nekk waa Dakar rek nga koy gis quoi tey gis nañ comme yenn initiative yu mel ay salon film ak ñeneen ak ñeneen moo tax dañ koy rafetlu quoi di leen wax Les yeux sont là. Ça fait combien de temps vous avez commencé à répéter combien de temps ça fait bi xaw na yàgg quoi parce que ñu débuté depuis la gën a officiel. parce que 2004 bi moment boobu lañ jàpp ne ay rapport dëgg nañ quoi parce que ñu ngi enregistré ay son xam mhm. ñu ngi nekk ci mouvement bi carrément quoi. Mhm. bokkut ak at yi nga xam dañoo newoon di bëgg rap di dem ay concert di freestyle ak affaire yooyu. Mhm. loolu boobu nekkutoon dañoo dunduñu affaire bi comme carrément comme loolu moo tax bi ñu demee ba en 2004 si lañ gën a concentré wu xam nga ci biir euh, euh, rab bi xam nga si la mu si la gën a officiel ça fait maintenant 14 ans instant bi ñu ngi ci biir. loolu mën naa wax ne du benn at bu ñaar mais fukki at ak ñeent la quoi. ok alors Aka au début au début vous étiez au nombre de combien ñaata personne ngeen doon bi ngeen doon doole commencé hip hop. waaw moom loolu moom bëri woon na quoi parce que xam nga rek dañ naan début rap moo demee noonu quoi parce que booy doo ko commencé il fallait que mbooloo bëri ñëw quoi. loolu lépp c'est juste pour xama rek am na ñoo xam dañuy yër si am na ñoo xam dañuy jaar jàll am na ñoo xam ne aussi dañuy ñëw pour toog mais bi ñu doog a débuté parce que ñoom ci dance lañ commencé woon quoi mm-hmm. ñoom break break la ñu jékki-jékki ne non mm-hmm. ñun sentir nañu war nañu bi def ñu benn délire nii quoi gars yi di ree xam mais après par la suite si lañ toog ni non lii war na mën a nekk quoi ñu def ko mm-hmm. bi ñuy commencé déjà ñu ngi nekkoon trois lañu woon sax quoi parce que akaale woon baa ak biir xam nga dañ débité dem ba benn instant am beneen gain bu ñëw ku ñaan ndaamali mu nekk kat bu nekkee kat dem benn ndaamali après bàyyi génn quoi dem parce que dafa waroon tukki Diourbel tukki foofu quoi moom mu dem ñu dem ba benn instant après laay laay bu nekk SL 100 degré mhm. ñëw intégré mu nekkaat beneen quatrième membre xam nga ñuy dem ay at parce que quatre membres yooyu gars yi xamoon nañ leen quoi ba aka bis ak mi nga el gars yi ko xamoon nañ leen quoi ñu dem ba demaat demaat ba jamono xamoon après am beneen copain bu ñëwaat mu naan tuuti ñu nekk cinq bëri woon nañ quoi au début quoi demoon nañ ba nekk au nombre de cinq quoi après par la suite xam nga si lañ demaat ba nekk deux mu nekk aka ak ba quoi ok alors comment se porte le hip hop ici au niveau de la région de Kaolack tey jii hip hop bu Kaolack tey naka nga ko gisee est-ce que hip hop bi mu ngi dem wala nouvelle génération bi et tout tey jii il faut que Kaolack mais à part Kër gi et Rifou que vous connaissez il d'autres apports qui méritent d'être vus sous la lumière tey jii hip hop bi mu ngi fi tu va mais tey lan mooy problème hip hop bi carrément ci niveau ci région bi tey. ok c'est que Kaolack dafa xawoon manqué li ne woon problème bi yëpp dafa manqué woon ay base quoi ay base yi nga xam ne tey au moins artistes yi fi nekk dinañ ci mën a nekk di jàng xam nga ay découverte yu bees di xam studio xam nga di xam naka ngay priser naka ngay defee son xam mhm. naka ngay mesurer say mesure ak yëpp mais loolu lépp mhm. parce que dafa manqué woon ay studio wala soit structure yoo xam ne tey dina formé booyu ci loolu quoi mhm. loolu amoon na quoi mais bu dee talent kese kese kese Kaolack mën naa ni boo fi ñëwee da doyal set parce que dañu naan capitalu hip hop Kaolack bu ñu koy wax nekkul dañuy tagg Kaolack quoi mais c'est affaire yi mi ngi avancé parce que da bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne instant ñu ngi leen gën a tudd ci hip hop loolu dafa nekk loo xam ne aussi tamit nekkul luy taxaw fii moo tax ñu koy wax quoi am moo moo tax yenn yi nga xam ne sax tax ñun ñu gënoon a toog des sa kaw rek dama ñëwoon Dakar parce que yàgg nañ rab xama mënoon ngeen mënoon ngeen def comme ni kër gi dem Dakar toog fa xama topp suñu promo mais tamit aussi am na loo xam ne bëggoon nañ ko def mhm. mooy maanaam créer xam ne tey instant dina a tenir ay boo yoo xam ne ñu ngi fi xama ñu avancé liggéey di dem xama ba waa Dakar ñu ngi jugee foofu ñu di ñëw fi di jël si ay rapport ba sax ba dañ enregistré mhm. parce que loolu tax na sax dem nañu benn moment bi léegi boo xoolee studio bi ñuy yor label bi mhm. am na ay rapport yoo xam ne sax dëkkuñ sax kaw la quoi li ci ëpp ci dëkk la quoi fii ba ay Casamance xama mhm. fii ba ay Dakar yeneen temps ñuy ñëw quoi parce que loolu lañ gisoon moo tax xama rek demoon woon quest que le hip-hop a fait pour vous tey jii hip-hop lan la lan la def ci yéen ba léegi ndax yéenay def ci hip-hop wala hip-hop fay na leen wala ba léegi hip-hop la mën lan la def ci yéen tey jii nii créé ngeen seen benn label studio tey jii booy yu bëri fi la ñuy fi la ñuy enregistré tey jii ku ci mel ni tamit ñu dof prouvé na tey jii nii kooku dañ naan dañ naan kon donc liggéey bi set ci côté boobu kooku rek élément la tu tey jii nii lan la hip bi ba léegi ndax yéenay def ci moom wala hip-hop bi fay na leen wala bon bu dee cadre fay ba léegi comme ni ñu ko gars yi di xaalis bi ñëwagul quoi parce que mooy li may wax souvent quoi dañu boole ñaari chose mooy label dafa am ak crew bi quoi parce que ñaar yooyu lañ cumulé loolu moo tax tardement wu jéeg sax sax foofu la foofu la xaw a nekk quoi mais su fekkee comme bu fekkoon dañu topp suñu groupe kese kese kese kon dépassé woon nañ fii dem nañ ci yeneen chose quoi mais tey loolu lañ bëgg a pour wane ne noo jox benn exemple ci rapport yi quoi ko nit ku nekk bul jàpp sa bopp kese quoi war na war am ñoo xam ne mu ngi sa ginnaaw war nga leen mën a puus jàppale leen xam nga mhm. teg industrie boo xam ne tey ñoom bu ñu ñëwee ku ci nekk mën na bu dee xaalis bi ñuy wax quoi cash cash mhm. fayaguñu ñu ñëw lépp moyen de ko def amul benn bi ñuy liggéeyal wala jox xaalis naan ñu noo yokk leen si ñu xam nga ñoo jël suñu moyen bopp di ko ci teg xam nga di ko def xam nga ba léegi quoi muy metti di tar mais alhamdulilah quoi parce que ñu ci gis benn succès bu au moins yi ñu ngi commencé gis ni non affaire bi mi ngi commencé am sens parce que am na gars yu bëri yu commencé di liggéey yeneen temps loolu rek déjà succès la succès la quoi effectivement alors euh, ñu ngi waajal euh, lendemain de la tabaski da ngeen war a def benn concert concert bi ñu ngi koy defee à l'alliance franco-sénégalaise alors concert bi lan nga moo ci mën a wax tey concert bi naka seen préparation concert bi est-ce que tey autorités yi nekk ci Kaolack ñu ngi ciy jàpp wala tey wala yéenay dem ak seen i maigre moyen wala explique-moi déjà boo xoolee tar na quoi métti na xam nga parce que boo xoolee hip hop léegi amul ay partenaires yu si jàpp noonu la demee quoi ba léegi dama naan autorité dañoo xeeb ba léegi quoi dañuy jàppee ni comme rappeur booy rappeur sax la ñuy wax quoi ba ne dem ba nekk mag sax ñu naan la booy xam nga loolu la rappeur bi du xam dèjà moo tax gars yi fàllewuñ ni ak ñuy def ñu bari ñoom dañ ci jàpp ñun tamit xaaruñ leen ci quoi mais bu ñu fekkee coow jibul parce que suñu wéy lañ nekk quoi mm-hmm. te bi ñu koy def bi mooy def naa troisième édition ñu woo ñëpp di ci woo bépp Kaolack quoi ak képp koo xam ne sax newul Kaolack quoi ñu ñu ñëw seetaan koy def pour ma samba wala ma demb mais dañ hip hop xam nga dund parce que date bi boo xoolee kër gi moo ko daan def na peut être parfois defatu ko ñun ñu ngi fi quoi ay artistes Kaolack lañ xam nga war nañ ko mën a tekkili waat xam nga affaire bi commencé dugaat mu nekkaat fête boo xam ne day nekk yoo xam ne dañuy changé événement lay doon boo xam ne Kaolack yëpp dañ koy xaar quoi xam nga looloo tax ñu def concert bi mais amul kenn ku jël xaalisam di ko ci def ma sàmba wala ma dem lu dul ñun suñu xaalis bopp quoi loolu rek dèjà si lañ ñàkk quoi alors de la tabaski concert bi fan la alliance la quoi alliance franco-sénégalaise bi 1000 francs 1000 francs jour J 2000 francs 2000 francs alors population Kaolack seen doom moo wootee am nañ habitude di gis artistes yi jógee étranger bu ñu wootee day seen i concert fii Kaolack ñëpp nangu nañ ni euh, Kaolack dëkku hip hop la sa yoo woote hip hop dañ lay wuy si kon donc dama damay jàllale benn message de grâce population Kaolack lendemain tabaski de grâce ñëw leen jàpp ci concert bi parce que GT5 moo woote GT5 ku ne xam ne ni kenn du leen présenté ci ici au niveau de la région de Kaolack parce que teg nañ fi seeni i label tey ñu ngi produire ay boy ñu ngi def ci hip hop bi donc am na ñoo xamante ni mënoon na leen ci fekk mais fekku leen ci ñu toog croiser seen bras kon ñooñu tey jii nii jar nañu ñëw soutenir leen support leen donc lendemain tabaski de ñëw leen ñu feesal alliance franco-sénégalaise gëm ni seen doom moo woote GT5 forever c'était Mame Bip open mic alors one love